salaamaaleykum internetu Sénégal tey ñu dalal fii Mamadou Mamadou bu ñu ko waxee mooy Doo King ci dañ ko xamee Sénégal koo xam ne influenceur la humoriste la mën naa humoriste la. Mhm. donc maa lay bàyyi nga nuyoo internet mi seetaan. waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum lu muy suivre waaw salaamaaleykum sama copain Majestic Drama moom beatmaker la mhm. waaw dafa jógee Europe ñëw di def affaire nice. Mhm. donc nuyu bu baax parce que chaque fois ñu ñooy ànd waaw. maa ngi nuyu tamit samay comme ni ma ko waxee rek samay abonné waaw di leen wax ni dimanche bi incha allah. 17h hmm. place du souvenir. Hmm. maa leen fay xaar. Hmm. après mu jeex. <laughs> alors euh, Momadou euh, laay wax bu ma la boo doon présenté sa bopp tey lan ngay wax. man waxuma du king de Momadou boo doon présenté. sa bopp Momadou. Euh, maanaam mooy nit koo xam ne genre xam naa li ma bëgg quoi xam naa li ma bëgg. du ma bàyyi genre samay samay passion wala samay affaire mhm. di di jël benn dessus boo xam ne genre que mun naa bàyyi le plus important quoi comme samay études sama sama domaine de travail et tout ça mhm. man man noonu la mel euh, su lu ma war a def dama koy def priorité dama koy def après le reste ma bàyyi ko ba si ba ma am jot rek ma def ko mhm. kan mooy duuki kan mooy duuki duuking mooy ki toog nii rek gisoo nu ma nu may reetaanee noonu laa bëree jàmm. Mm-hmm. damay ree rek fu mu toll damay ree rek man maay duuking quoi nii laa mel naturellement quoi. d' accord si réseaux sociaux la nga xamee TikTok Instagram. Mm-hmm. tu es suivi lan nga gisee sénégalais yi ñu lu ñu lay suivre te yow nekkoo fi dëkkoo fi. bon vidéo yi nag commencé woon naa ko avant avant may dem. Mm-hmm. jëkkoon naa def vidéo yi deux mille deux mille seize deux mille quinze. maa ngi doon def mais après bu ma demee damaa bàyyi après si laa commencé waat vidéo bi xam nga réseau rek. Mhm. réseau nekkul ni da nekk fële da ngaa nekk Europe wala da nekk Côte d'Ivoire ak affaire yooyu noonu sa audience bu ciblé benn kii rek comme ça Sénégal rek jeex na bu fekkee dangay ngay def lu neex wala da ngay def loo xam ne genre kii na. rek nit ñi dañ lay xool dañ lay seetaan. Mhm. gis nañ Du King dafa collé ak actualité sénégalaise. Mhm. maanaam lu xew dina de gis nga def vidéo ci TikTok bi da ngay def ay meilleures vidéos de la semaine. Mhm. commenté ko et tout. Euh, loolu lan ban temps nga toog noonu di xool vidéo yi di di di ci commenté wala collé ak actualité dara du la ci Sénégal. waaw dëgg la man moom du ma du ma toog di ko faral di xool sax. dañ may mentionné am TikTok. ok lu si ëpp dañ lay dañ lay mentionné si ay vidéo naan la lii jaaduwul wala nii la demee nii la demee wax si après yow da ngay jéem a da ngay jéem a dugal sa sa avis des fois nga nga gis loo xam ne genre mu nakari la trop après nga nga wax sa sa xalaat. Mhm. vidéo yi da nga ko def pour euh, genre ñu xam la. Mhm. pour yow sa buzz bopp sa activité bopp. Mhm. wala donc def pour euh, genre amoo am nga temps libre rek pour te divertir ni ñaan Sénégal zéro stress. zéro stress. Ah, mais man bi may commencé vidéo bi moom dëgg yàlla bëggoon naa ñi ñu xam ma ko parce que connaissance bi tamit da si baax. connaissance bi même su fekkee ay nekkul ay xaalis rek ak kii bi rek da si baax quoi loolu taxoon gënoon tax ma ma def ay vidéo mais du wax ni tamit genre damay def vidéo juste pour le plaisir bien que am na si mais bon am na li ma si bëgg ko en fait loolu la quoi loolu moom moom <laughs> vidéo yi am li ma si bëgg moo tax. Mm-hmm. Euh, début bi ci benn terme la nga xamee après mu jeex. Mm-hmm. genre amoon na ñu naan da nga ñàkk xorom ba mujjee am xorom. Hmm. début bi noonu la woon. Ah. après mu jeex dem ba nekk nag benn benn mën naa wax euh, signature bi ñëpp dañuy def hmm. seen vidéo de après mu jeex après mu jeex. Hmm. et lan nga gisee woon noonu appréciation yi nit ñi amoon. donc affaire bi daf ma bett de. man damaa jég-jége rek mu toog benn kii temps yooyu maa ngi je pense Instagram maa ngi woon am ay côté cinquante cas mais ak beneen compte la woon quoi beneen compte. maa ngi woon am ay cinquante quarante cas côté yooyu maa maa jékki-jékki rek xëy gis ñu may posté ak ñoom abaay ak euh, kii ñoom seen waa Seneweb ak ñoom ñëpp di ma di ma riposte quoi. ma mm-hmm. jékki-jékki rek gis sama compte bi di explosé moo may cinquante mille abonnés soixante mille abonnés affaire yooyu noonu ma gis Facebook gars yi di ma screen naa ma sa vidéo bi sa vidéo bi ah dafa ma bett quoi dafa ma jëlee kaw. Mm-hmm. dama ma doon def nii rek juste comme ça quoi. après mu kii rek xam nga rek yàlla mooy kii. waaw nii di ko kii mais am na ñu bëri xaw nañ kii te kii dafa ñàkk xorom. trop ba bi day xool rek noppi si ñoom nga doon gisee ñu la gars def. non man loolu lu positif jëlee de. Mhm. te te yi si boppam loolu lañ bëgg si boppam man daanoon naa def ay vidéo imitation Diop moo gënoon jël sama temps te en moo gënoon drôle si man. Mhm. mais après bu commencé di def yi fi ñàkk xorom yi ma gis gars yi dañuy suivre di commenter samay vidéo di ko partager. yooyu moo leen neex quoi loo xam ne genre amul sens des fois ma si créer ay concept ay Sénégal rek ngay gis wala moo wax benn affaire toog lu yàgg ba ba vidéo bi jeex du may wax du am sens. Mm-hmm. et loolu moo leen di loolu moo leen di neex affaire yooyu noonu quoi moo tax ma ma continuer ko bu njëkk ba dañuy gis bokk ba léegi nii nit day commenter day toog commenter ci vidéo am day toog di wax ba nit ñi xaw ko naan lu mu wax dafa ëpp mais yow. ci mm-hmm. da nga xaw a. timide ci vidéo bi mën naa ko wax maanaam mm. sa wax bëriwul te pourtant nit ñi dañ koy suivre. Mm-hmm. loolu yow kese yaa koy def je crois. waaw si dëgg la de man de. wax nu ma noonu sax si vidéo yi noonu laa timidee en réalité. Mm-hmm. damaa mm-hmm. même même même kii bi may njëkk a feeñ si télé yi gars yi ñu ma wax naa ma sa timidité bi dañul ba léegi quoi mu ngi des. mais maa ngi koy commencé di améliorer di changer par tuuti tuuti du coup man loolu sama sama signature la quoi. su taxaw si vidéo des fois. ma toog benn benn dix secondes euh, trente kii quinze secondes yoo xam ne du ma wax juste samay manière kanam. kanam waaw waaw ak yooyu laay def après si bu si biir ma doog wax mun naa wax sax mais ay quelques mots kese laay wax. Mm-hmm. jàllale message après ma pare si mu drôle après mu kii. kon mun naa wax Du King toppatoowul kenn style boppam la indi imposé ko Sénégalais ñu koy déglu. même boo xoolee boo muy boo muy yàggee siiw sax. challenge mosuma ko def musuma respecté challenge mhm. gars yi bu ñu defee challenge ñëpp di ko def nii man damay jàdd dem fële quoi mhm. loolu loolu loolu la gars yi bëgg si man affaire yooyu mhm. nga dem nag euh, ci nopp bi dem ba def loo xam ne tamit intéressé na Sénégalais yi mooy lu am actualité nit ñi di déborder ci biir TikTok bi yaa leen jéem a regarder parce que quoi qu'on puisse dire da nga correct ci lépp vidéo même su lool da koy def si manière boo xam nit ñi képp ñëpp mën nañ ko seetaan nga commencé nag euh, TikTok chaque semaine nga génne benn vidéo bu gën a drôle mhm. wala bu gën a bu nit ñi gën a xool mhm. après joxaale benn benn conseil loolu lan moo lan moo la ko inspiré bon comme euh, ça dama doon kii rek surtout ak ñàkk temps bi xam nga mhm. appel yi laa doon def vidéo appel yi ak rappeurs yi loolu tamit poussé na mu bu baax parce que bi ma bàyyee vidéo mu ñëwaat en 2019 moom laa njëkk a def li ma ko njëkkee def maa ngi fàttaliku vidéo appel ak dip laa njëkk a def. <laughs> dip waaw je me njëkk a réactionné njëkk ma ne ah kon de lii day kii ma defaat defaat ak ñoom. Omzo ah boobu dip dafa commenté. waaw dip dafa commenté mhm. ma defaat ak Omzo ak yooyu noonu la affaire bi commencé ci TikTok gars yi dañ koy challenge bu baax affaire yooyu noonu. léegi gars commencé waat ma di ma suivre vite fait benn deux semaines ma am cent mille abonnés ak compte mhm. bu bees. Mhm. ma xam ne genre laal mais dafay jël temps. dafay jël temps pour couper vidéo bi defar ko jël parole yi ak yooyu yëpp dafay jël temps. Mm-hmm. du coup manque de temps boobu noonu moo gënoon tax ma def vidéo réaction. Mm-hmm. damay gis benn benn affaire bu kii des ma gis benn vidéo bu trop nit ñi foog ne maa mun tooñ mais juste que humour la quoi gis benn vidéo même si affaire bi dafay xaw a bizarre mais dafay retaanlu quoi. Mm-hmm. après boo si defee réaction des fois ma si sax wax duma wax sax damay damay noppi rek def samay manière kanam pare si quoi. noonu noonu la ma dikkee quoi ma commencé di def réaction si TikTok am na vulgarité mais gis naa gis yenn yoo xam ne da ngay toog nag nga wax waxantaan surtout jigéen ñi. nga leen di un peu ñaax un peu seen comportement ci réseaux sociaux yi. loolu tamit da nga ko bëggoon def sa participation mise à part comédie bi wala. Hmm. non man genre dama koy def en tant que en tant que nit en tant que sénégalais en tant que religieux en tant que doomu réew mi moo tax. Hmm. parce que am na vidéo yoo xam ne. gis ko kiwul quoi rafetul si si gis-gis ak affaire yooyu noonu pour sàmm suñu valeur moo tax ma siy def di si wax <laughs> boo xoolee sax am na yenn vidéo yoo xam ne tamit du ma ko du ma ko si def parce que mun na yàq sa image après <laughs> comme ay vidéo des fois da nga gis ay vidéo ay sextape ak yooyu da nga gis ay kii yu koy def mais man kenn mësuma gis ma ma def si yooyu si si vidéo yooyu quoi waaw bu mën. vidéo doo si aborder daal sujet boobu si wax du ma si aborder quoi. parce que mm-hmm. damay wax ni genre loolu sama yoon nekk si quoi c' est pas nekkul lu sama yoon quoi nëbboon nañ ko mu feeñ. waaw jeex na ko comprendre mm-hmm. bu fekkee nag da nga def TikTok boo xam ne genre ñëpp ko gis nga partagé ko ñëpp gis ko foofu loolu dina ma nakari ma wax si mais loo xam ne genre. ñaar ñi ñoo ko c'est intime c'est ñoo ko sekkoon kenn partagé ko wala kenn jot si affaire yooyu. loolu du ma si du ma préféré di si di si wax quoi damay damay damay noppi rek ma cool bàyyi sama kii. Mhm. Euh, nga am vingt ans. Mhm. nit ñi di la suivre succès bi dugg. Mhm. Euh, nan nga koy dundee. bon est-ce que c'est facile en tant bon bon euh, du ma wax ni c'est pas facile. c'est c'est juste normal quoi en fait parce que genre voilà quoi man man kii Baye Fall maa laa koy dundee quoi comprendre nga je suis simple. nu may dundee ak fële rek laay dundee fu ma mun ti nekk fu laay noonu laay dundee quoi. Mm-hmm. Euh, ni ma mel rek laay wone bu may génn sax des fois carpit laa jël du ma nekk fii di jël ay tax ah mais nit ñi dañ lay xàmmee si bedd bi. pas mais bon mm-hmm. c'est pas man damay dund naturellement quoi dama koy dund dund naturellement même si genre voilà quoi man moom aw ma problème boobu. ah yow war nga am xaalis si du carapit. Ah, yow eh, Espagne ak France ak yooyu. damay damay damay damay dugg taxi waaye tamit damay dugg car rapide tamit. muy car rapide. su ma su ma jël taxi day fekk mu sori. d'accord ma fii mënu ma kii. misaa ma war a dem ville si biir ma jël taxi. Mhm. mais su fekkee damay dem ay côté kii fii nii car rapide laay dugg damay dem dugg car rapide. Mhm. léegi boo tasanteeg nit anecdote tasanteeg nit wul xàmmee ci mbedd bi. ak yooyu noonu <laughs> après nan la réaction bi nan ngay demee parce que yow da ngaa timide. am na am na ñoo xam ne nag. dañ may nit bu baax doog ma xàmmee. Hmm. parce que xam nga mosuma ñëw fii def naa fële cinq ans. Mhm. ñëwuma te bi may def vidéo yi genre bi ma xamee fekk maa ngi foofu moo tax léegi dindi dañ. may suma première vacances waaw première su ma ñëwee gars yi dañ nit tase naa benn benn kii. Euh, benn benn receveuse bu nekk si oto bi ñu mu dugg si si kii bi rek si bus bi noonu rek man nag sama sama copain bi. toog taxaw taxaw taxaw di ma xool ma koy tooñ noonu daal mu tontu sax duudu doo doo duudu ma ne ko déedéet est-ce que jaawale woo du man de affaire yooyu mu kooku noonu nekk si mm-hmm. mu wax wax wax ma ne maa man la de après dafa nekk di retaan bay jooy. Mm-hmm. si bus bi. ma ne ko waa léegi delloo ñu suñu paas comme que. retaan waaw mm-hmm. comme xamee xamee xamee nga ma. mais reetaan nga tamit léegi delloo ñu suñu passe affaire mhm. yooyu quoi mais naturellement rek la. naturellement maanaam succès bi monté wu la. un peu nga ñëw Sénégal def say boulot def say oto. du ma sax affaire succès moom du ma wax sax succès du succès. Mhm. nit ñi dañ lay suivre kese. après dañuy bëri mais sa xamoon nga ni Sénégal xam nga fee nga nekkoon di xam ñu lay suivre fii mais hmm? ba nga ñëwee toog xool nit ñi di la topp nga ñëw dugg hmm. est-ce que tamit euh, xalaatoon nga ni nit ñi ñu ngi la ñu nii en réalité quoi nga gis réalité benn moment man nag xam ma dama xaw a sopp mhm. benn moment bu ma newoon naa su ma ñëwee il faut ma yokk sama audience il faut ma dem gisante gars yi ma dugg dugg ak kii xam nga rek boo bu fekkee da nga ñëw nga kuul toog sa coin mhm. affaire yi mooy loolu quoi foog gars yi gis la di la gis ngay ànd ak ay diw wala di la gis ngay feeñ si ay affaire affaire yëpp yi gën la jox respect gën la gën la kii ko gën la jàpp quoi mhm. man loolu dama ko préparé woon bu yàgg dama ne woon su may agsi genre loolu dama koy am na sa yeneen moroom influenceur wala ay comédien mm-hmm. wala ay humoriste mm-hmm. donc fii Sénégal des fois ñu tooñ leen dañoo xaw a ñoom succès bi dañoo xaw a yéeg ñun du ñu mm-hmm. am accès si ñoom et euh, ba nga ñëwee ñoom gisante ak ñoom ban relation ngeen am. yu cool yu cool ñoom ñëpp yu cool. xawuñu leen kii nii. non non non na amoon na benn kii bu ma bu ma Edu invité woon Edu série infidèle xam nga. Ah waaw Bouba. Bouba waaw daf ma woo invité ma ni ma am na match. entre kii euh, comédiens yi comédiens yu nekk Thiès daal. Mhm. mais Abba si ñoom la doon football si waa Thiès. ak acteurs yu nekk Dakar a ñoom Jules César ak gars yooyu yëpp quoi. Uh-huh. mais bu ma demee cool ma demee cool ñëpp laa kii woon. xeebuñu la noonu. non même pas. Mm. même pas cool cool non ñoom ay borom baax lañ. mais sax ay comme genre ñi fi fekk ay Mahfouz ay moom laa njëkk a gis. Mhm. moom laa njëkk a gis mu ne ma kaa ñu ànd vibe rajo ñu dem. parce que xamoon naa ko avant quoi. d'accord avant mosoon naa dem seen kër ma seet si ko ñu toog waxtaan dem genre dama ko kóol ñu waxtaan après mu kóolaa man ne ma kaa ñu dem vibe rajo ñu ànd fekk man jumelles yi programme mën nañ moo lundi moom kii bi la waroon dem samedi ma ne ko jukku nekk benn deuxième invité affaire yooyu mu ngi lay fay. tey est am nga loo ci am. ban porte loolu ubbi ubbi déjà xaalis côté xaalis comme nag loo leen ci. maa ngi maa ngi lekk xaalis. yaa ngi ban nga koy lekkee Instagram. YouTube Instagram tout. Hmm. un peu de tout maa ngi doon lekk tamit TikTok mais bon après dañoo dañoo tëj sama compte bi xam naa dafa am. ku ma ah, signalé ah fay. ba boo nekkee Europe si. ok boo nekkee Europe mais Afrique du ko fay quoi. boo nekkee Europe genre je pense que France Espagne États-Unis hmm. quelques pays rek la quoi. ah ñun de buñ doon fay. non Afrique amul Afrique du fay amul. même Canada sax du fay. Be Belgique xaw du fay. d' accord. pays rek. mais yow yaa ngi ci doon fayeeku. maa ngi ci doon kii après dañu dëj ma jékki-jékki rek ñu bloqué sama compte affaire yow bon ñaata ngay touché ci ñetti réseaux kii yooyu. Ah! ay 1 million 2 millions. <laughs> loolu est ce ko waxee gars yi ñoo kii. Ah, non grave non tout tout par egg na million par mois par ou bien par mois par mois. egg na un million deux millions. non bàyyi ma bàyyi ah, ma dëkk noonu rek million yi il faut nga daal ko nag. non bàyyi bàyyi <laughs> bàyyi ma bañ wax loolu. ñoom ñoom kii ñoom boo yooyu ñoom zaal ak yooyu ñoom ñoom ñoom ñooy laal xaalis waaye du man. <laughs> ah yow tamit am nga cent plus de cent mille. Euh, abonnés waaw si en plus ak ak publicité Instagram yi ça ça rapporte. Hmm. kon daal nga millions yi waxal rek. Ah, daal nga mi di yooyu <laughs> alors Dookki euh, ñu xam ko ci ci ci reetaan lu nit ñi divertir nit mhm. benn jour nga posté benn photo. Mhm. nit ñi commencé. ah bon euh, kii la ci jeunes yi genre waaw. Mhm. lii lan la. ci oto mbalit oto mbalit France nag yemul ak fii. d'accord mais éboueur. nga beneen aspect bu ñu xamul woon ci yow nga génnee ko photo boobu lu tax nga jékki-jékki rek posté ko. man comme ni ma la waxee rek. man lépp naturellement laa koy dundee. gisoo eh, am naa bës nga si bëggoon. non même pas. billaahi même pas. Ah. gisoo gisoo même Espagne damay tase ay nit foofu benn copain laa mos a mu ne ma mënu ma gëm ni yaa nekk nii quoi affaire yi ma ne ko pourquoi man booy gis yooyu man su may génn sax nii des fois sama papa daf may naan xam nga dafa ñëw moom tamit quoi mm-hmm. Espagne la nekk mais dafa ñëw ñu tase fële. léegi mun may ay carax laay sol carax duus su may génn. Mm-hmm. mu ne ma lii du yàllu génnukaay kaa ma jox la sama daal nga yóbbu man ko. père man yii laa gën a nekk à l'aise bàyyi ma rek ma génn sama benn short laay def kii yëre bu sam ak càll carax génn ñun laa kiiyee quoi du coup Espagne bu ma demee copain bi ne ma mun ma gëm ni yaa nekk affaire yoon nekkal programme mun gis nga mooy hmm. a jàpp ay kii man de moom lijjanti mu loolu hmm. naa def samay vidéo pare su ma génnee genre naturellement ma demee bi ma commencé liggéey bi ma liggéeyee kii bi bi ma jékki-jékki rek ma toog ma ne xaaral xaaral ma comme gars yi dañu ma doon laaj ay looy def affaire yi ça fait l'occasion ma tontu leen ma leen lii laay def su ma jàngul maa ngi liggéey quoi après si ma sama collègue bi ma ne ko photo ma mu photo ma rek après ma dugg ma dugal ko waaw comme ça. ba nga ko dugalee réaction yi nga am nag. na yoo xam ne touché na la nag. xalaatoon naa ko de ko. Mm-hmm. at nga ni. xalaatoon naa ne naa ne parce que boo boo xoolee nit ñi lu lu naturel si yow la ñuy bëgg quoi la ñuy gën di bëgg. comme ça nga nekk di ñor di. non boobu surprise la rek même. non même surprise la pour ñenn ñi quoi. je te man xalaatoon naa ko quoi avant ma koy dugal nga xam ne su ma dugalee nii dinaa am ay réaction yu positive. ok parce que nit ñi dañuy bëriwul lu ñuy gis genre mhm. ay nit yoo xam ne genre ci affaire de luxe la ñuy nekk. dañuy nekk c'est vrai duñu wane seen seen job duñu wane seen dara affaire yooyu. Mhm. du ma ne genre voilà maa ma dugal ko ma ne su ma jàngee des fois damay dugal ay photo yoo xam ne genre maa ngi dem école. ma dugal ko ma ne ko ba léegi maa ngi jàng <laughs> mais boobu est-ce am nga si benn témoignage boo xam ne da la touché wala benn commentaire boo xam ne nit ki lu mu la bëri na si bëri na si ay témoignage am naa message yu bëri tamit ak ay mm-hmm. am na benn jigéen rek démb ak i démb mu may naan genre que yaa tax ba <clears throat> ba wu ma sama jàng quoi parce que da nga may motiver surtout ak sa kii bi nga defoon affaire yooyu noonu yooyu noonu dama si jot yu bëri fa yu bëri kay da ngay gis koo xam ne dafay bind message bu gudd affaire yooyu noonu comme ça parce que mm. mm. accès waaw mais bëriwul commentaire bu kii bi surtout première publication bi mm-hmm. bëriwul affaire bi rek waaw mm. si après deuxième publication bi nag mooy loolu maa ñëw deuxième moom troisième publication bi suma non parce que ça ça rapporte am na xaalis. mu nekk rek. man bëgg naa xaalis moom nu mu xam nga xaalis rek man bëgg naa quoi. noonu la benn def naa fi am na benn photo bu ma defoon fii tamit maa ngi doon yëkkati ay carton mhm. ay carton yi xam nga xam nga kii transport de logistique ak yooyu noonu. waaw euh, DP boobu DPD la tudd. du coup bi dafay am ay boulak les cartons yi dañuy wàcc. yu wàcc wàcc wàcc wàcc am ay pneu pneu yoo xam ne pneu yu diis pneu mini camion yoo xam ne day diis day jàpp ba sa loxo yi di métti ma yëg ci ay carton yoo xam ne plus de ko maa ngi ko doon liggéey te guddi la guddi woon guddi laa ko doon liggéey guddi euh, kii laay dugg mu tudd 22h wàcc ay 7h du matin côté après ñëwaat tëdd man moom nu ma gañee xaalis rek. ça va xam ne lew na. waaw lew na pour pour satisfaire samay besoins jàng du ma koy yaakaar si ay vidéo non non damay def vidéo waaw def naa vidéo kon bokkoo ci ñi yaakaar ci vidéo pour dund. non non da nga am sa métier bopp. su ma waree liggéey su ma waree jàngi sax du ma def vidéo ba xam ne am hmm. ma jot fii du ma def vidéo hmm. su ma waree gisoo am na benn formation bu ma doon def moo taxoon ma njëkk a bàyyi sax premier kii hmm. daf ma wut commencé woon perturbé après ma bàyyi ma ne xaaral ma bàyyi vidéo ma bàyyi ma supprimé sama compte yëpp mu dindi ko. après mais Instagram bi dama ko joxe woon quoi beneen kii keneen laa ko joxoon affaire yooyu. ma mhm. bàyyi ba benn moment si confinement bi gars yi ma sonal ma xam ne am naa jot ma am sama diplôme ba pare. Mhm. ma ne ab ah, pourquoi pas ma reprendre ak si la reprendre ak beneen compte ma def appel yi affaire bi ne bëgg. chose mhm. comme ne ne man vidéo yi mu euh, mënul du jël sama temps quoi su ma amee jot rek laa koy def. ak mu amee jot nga koy def. Mhm. alors tey euh, vidéo yi rapporté na la ñëw nga Sénégal tey euh, sa premier vacances si ba nga siwee daal premier vacances baa nekk nii. <laughs> alors est-ce que da nga ñëw pour genre vacances noonu rek wala da nga ñëw tamit pour. xool affaire bi terrain bi nu mu demee. ah dama wala imposer dara wala teg dara loo xam ne nit ñi tamit dinañ ko retrouver say fans. exactement damaa ñëw. Mhm. xool terrain bi. terrain bi vacances pare kii. parce que bi mu ñëwee fii am na ay affaire yu bëri yoo xam ne xam naa ko quoi am boo nekkee fee da ngay kii boo ñëwaatee si ngay gën a xam si ngay gën a xam affaire yi et surtout fooy teg sa tànk ak affaire yooyu ak yoon booy jaar pour kii jukko coup voilà euh, xam naa ni su ma delloo moom je vais faire des yoo xam ne fii laa koy kii mhm. incha allah tamit bëggoon naa def ay affaire fii tamit mais bon xam naa ne temps bi du si xaj parce que léegi mu ñibbi mhm. mais chaque bu ma delloo dinaa Mm-hmm. parce que fii euh, euh, influenceurs rek yooyu noonu ñoom opportunité ay publicité la ñuy am. Ah. ak yooyu noonu est-ce que ba nga ñëw Sénégal aussi am nga ay opportunité ñi ñuy ñëw ci yow. Mm-hmm. surtout. si si exactement terrain bi ni muy doxee fii. si def naa ay publicité yu bëri def naa ay publicité yi dàll ay yére. Mm-hmm. même Suisse Gold xam Suisse Gold. Euh, mooy xam naa ko waaw Mbazin. ñooñu defe naa am naa sama photo yi léegi mu pare ma si doon def shooting. Mhm. mu jox Mbazin ak yooyu noonu yëpp ñëw. du xam naa li mooy ma siy def shooting def naa shooting keroog mais xam naa tey lañ may jox photo yi. d'accord ma dugal ko def naa say publicité yu bëri. yu bëri. Mhm. événement est-ce que am na loo xam ne nag fan si dinañ ñëw. Mm. non kii Euh, euh, place du souvenir dimanche incha allah. man nag xam nga xam la ma problème. mais bugguma wax bugguma wax. affaire après mu jeex jeexalul. affaire bugguma wax bugguma wax fans quoi xam nga lu tax. Ah, parce que damay visionné wu. comprendre nga be bee passé bu may def kii bi ba gars yi di ma tooñ noonu. Mhm. yàlla xam na ni dama distrait woon. fekk maa ngi wax ak sama copain bi maa ngi bind en même temps après ma ma def rencontre en fan mais yàlla xam na ni nekkoon loolu laa bëggoon bind. ah dama bëggoon dañuy organiser benn rencontre entre nous. Hmm. avant ma ñibbi. say followers. waaw léegi après genre ma def kii bi quoi ma def euh, ma ma def fans quoi. Hmm. après si laa ko dugal. dama distrait woon fekk maa ngi wax sama copain mais en même temps maa ngi bind. ma def ko sorti après ma def ko. le gars yi di ma tooñ noonu affaire yooyu. mais xam naa ñun ñëpp gars <laughs> gars dañ la wax boobu. di ma tooñ ci naa ma ay. ay ma ci Sénégal xaw ma la lan. da ngay gaaw da ngay mais bon man xam naa ne moom. réaction yi ma am fan nag de. ñu am réaction ma am laa wax si sama kii. Mm. day fees incha allah. lan nga naa a def xam nga man day fees tamit yomb na fii de parce que ñu bëri dañ la bëgg. waaw c'est vrai c'est la nga ñëw fii bëgg def dara gars yi dañuy ñëw. Uh-huh. loolu moom day fees moom. man duma la ko laaj de day fees par la mais nag lan la ñu mën a xaar. lan la mën a xaar. parce que say vidéo rek nga daan defar. Ah. non surprise rek bàyyi ba boobu non surprise rek bàyyi allah bu ñu bu jotee rek comme dimanche yàggatul. dina am xorom gannaaw suba ñu bëri am na ñoo xam ne dañ lay contre ne da ngaa ñàkk xorom. ñoom nag loolu lañ si bëgg ñàkk xorom boobu ñàkk xorom boobu xanaa xamoo loolu lañ si bëgg. kon léegi bu ñëwee foofu da nga am xorom. waaw dina am xorom dina am xorom bu ma ñëwee dina am xorom. <laughs> mais lan nga lan spectacle la one man show la lan ngay lan ngay def quoi. ah du ñu ñëw place du souvenir noonu du na ah mais. Ah. su non bàyyi bàyyi ma def ko kii. bàyyi ma def ko surprise waaw. ba doo fa ñëw di photo ak nit ñii rek dem sa yoon. non dinaa ko def surprise daa <laughs> te doo gis wax dara nii. non di bàyyi rek ba <laughs> dimanche. ah effet de surprise waaw. buñ fa ñëw ñëw ñu photo dañ koy ñëw ko couvrir de. waaw waaw ñëw ñëw leen man kay moom invité laa leen. waaw ñëw foofu ñu jël ay photo tamit dox de. waaw di souvenir leen di. ñëw leen mën ko ñun kay rek ñuy wax lu ñu mën a ñëw. ñëw leen kay ñëw. du fotow. du fotow ay shooting yooyu noonu du fotow du shooting. Hmm. am na shooting nag am na ay. Ah, yooyu yëpp dina waaw. mais bon am na ay affaire yéen ñëw leen hmm. rek couvrir affaire bi. ñoo leen ngeen couvrir affaire en tout cas mooy sa premier. par exemple spectacle. spectacle boo xam ne di nga ko di nga ko def au Sénégal. mais su ma ñëwaatee xam naa ni incha allah dinaa jiw si parce que Pape Sidi moom ma ko doon wax am na benn moment. mais hmm. yàgg na tuuti. boobu sama premier compte bi la. mu may ñu may ñuy waxtaan message mu naa ma pourquoi pas nga doo tëgg grand théâtre ma ne ko Pape Sidi yow kii nga de boobu boobu ay 2017 2018. ok côté 2018 yooyu 2019. Mhm. ma ne ko Pape Sidi yow kii nga de yow instant yow man instant yi tolloo ma niveau boobu bàyyil bés kanam mu ne ma affaire yi ñameel ñameel ak fit instant boo ñëwee nii nga invité say kii nga invité ma invité sa gars yi. gars yi dañuy ñëw gars yi dañuy. c' est vrai vraiment après boo demee ba mënal sa bopp. jaana c' est bon mm. affaire yooyu noonu. ma ne ko Pape Sidi bàyyil ba si kanam rek lu nekk ak ak temps ko après bu ma kiiwee rek ma def ko mais xam naa ne moom bu ma delloo ba ñëwaat incha allah fekk ma gën a kii. yooyu jàllal grandeur ma waaw benn affaire. incha allah incha amuñu habitude bi. lu dul buubu ah. moo ko fi def. Mhm. ñeneen ñi ñemewuñu ko de. non grand théâtre dama koy def. billaahi dama koy def. Ah, yow dama koy ñeme de yow hmm. defal naa ko. yow bàyyi ma rek. dama ko ñeme man damaa ñeme de. damaa ñeme damaa ñeme comme dama dama mel ni comme duudu. Mhm. am duudu dafa sab waaw defaa di génn di xool gars yi moom nag moom moo ma inspiré ak du ak. Mahfouz ñoom ñoo may inspiré. Mhm. duudu dafa kii moom dafay link ak gars yi xool ak kii affaire yooyu xam na nu muy demee quoi. ok du coup show noonu la rek. boo bëggee def show instant yi nii. Mhm. nga am say xarit xarit yoo xam ne genre yàgg nañ ko def dañ lay teg si yoon bi rek. après boo munalee sa bopp yow nga defal sa bopp. nga defal sa bopp ok nooy tàgg la aussi looy seetaan. Mhm, voilà ay abonné yi lu leen di lay xool. Mhm. man fan laay wax fan sa nga fi am. waaw waaw loolu tàggatoo ak lan nga leen di wax. bon man lu mu leen tàggatoo mooy maa ngi leen jox su ba euh, rendez-vous place du souvenir 17h incha allah. dimanche ba yëpp ñëw dimanche. waaw ci di nuyu tamit euh, NIMS. Nimz eh, Sénégal waaw ak bëgg moom moo bëgg buzz nag moom non loolu eh, sama sama gars la sama copain la moom moom moom incha allah photo yi muy foowee doo ko wax photo yi muy foowee waaw ay ah! toile ak xaw ma la ay toile ay toile moom mooy def yooyu mooy def yooyu mooy def ay toile ay yooyu mooy ne kii immature classe tuuti non kii dafa immature quoi <laughs> non baa du moom ci type immature la boobu waaw waaw maa koy ziar bu baax di mm-hmm. ziaraat tamit sama copain mm-hmm. majestique registre waaw euh, moom est-ce que envoyé wuñ ma ok. waaw gis nga il faut ngeen kii ko parce que voilà quoi am na disque d'or. si am na ay affaire am na kenn ku ma bind. waaw si parce que jugee na tamit. liggéey États-Unis dem France am di def fit ak ak ak ay rappeurs yu mag. rappeurs yu mag waaw ah, moom après dañ koy dalal ko def voilà. waaw ah, moom dañ koy dalal am ah, problème noonu la demee quoi. incha allah waaw. kon daal yow rendez-vous. rendez-vous voilà. doo shooting dina am xorom. dina am xorom dina am shooting. jàmm ay booy fresh. waaw ay booy mool. ay eh. booy cool. yooyu yëpp dina fa am. yaa ko wax ko. ay booy cool yooyu yëpp kon ñoom eh. Ablaye mën nañ ñëw. waaw xale yi mool yi. ñëppay ñëw. ñëppay ñëw. ñëppay ñëw. te dina am xorom. dina am xorom. jeex na incha allah.